et opérations de l'état-major du haut commandement de la gendarmerie nationale man maa ngi wuyoo colonel Papa Diouf man maay euh, ki ñu dénk wàllu maanaam emploi ak opération ci état-major au commandement de la gendarmerie nationale du 26 euh, novembre au 28 les éléments de la section de recherche de la gendarmerie nationale ont effectué un transport à Wakam dans le cadre d'une enquête pour un vol de scooter. À cette occasion, ils ont retrouvé sur les lieux où se trouvait le scooter volé trois autres scooters et plusieurs scooters en pièces détachées. euh, étant le produit de vol qui ont été également déclarés au niveau de la section de recherche. Mais de façon incidente, ils ont également découvert sur les lieux un lieu de détention de plusieurs personnes visiblement euh, séquestrées est soumis à des actes de maltraitance, voire de torture. Ces personnes étaient en majorité des jeunes âgés de 17 à 42 ans. Ils souffraient visiblement de malnutrition et plusieurs d'entre eux étaient blessés. Ils ont été donc pris en charge par les éléments de la section de recherche qui les ont évacués au niveau du service de santé de la gendarmerie nationale situé à la caserne Samba Diallo et à l'hôpital principal de Dakar avec l'aide du médecin-chef de la gendarmerie nationale, poursuivant leurs investigations. Les éléments de la section de recherche se sont également rendus sur trois autres sites de détention identiques à celui de Wakam. Il s'agit d'un site qui est situé à Guédiawaye, où 213 personnes ont été également retrouvées. Un autre site situé à Malika, accueillé également 22 victimes. Le dernier site situé à la zone B accueillait quant à lui victimes. Euh, parmi ces victimes, il y a, il a été dénombré 7 mineurs, mais également une jeune fille. Il faut préciser qu'au cours de leurs investigations, non seulement quatre scooters volés ont été retrouvés, mais également euh, un des géoliers, donc des victimes que je viens d'évoquer, a été retrouvé euh, avec six paquets de chanvre indien. Il a cependant réussi à prendre la fuite et il s'est réfugié au domicile de Serigne du Kara, dont le fils Ahmadou Mbaké l'a finalement ramené à la section de recherche suite à la demande insistante du commandant de la section de recherche. Il faut donc signaler que les éléments de la section de recherche ont ouvert une enquête pour des faits de maltraitance de traite des personnes, mais initialement, leur enquête portait sur un vol de scooter. Ils ont également ouvert une enquête donc, pour trafic de chanvre indien. Donc, suite au chanvre indien qui a été retrouvé sur l'un des géoliers. Donc, l'enquête est en cours sous la direction des autorités judiciaires compétentes. Le nombre de personnes arrêtées se donc à 43. Donc parmi les responsables qui ont été les différents sites. Et le total des victimes se chiffre à 353. Et comme je le donc l'enquête se poursuit sous la direction des autorités judiciaires compétentes. Euh, ci diggante euh, ñaar fan ak juróom ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru novembre bi ñu nekk section de recherche gendarmerie nationale euh, dafa yónnee woon ay ndaw euh, ci Wakam donc cité Mamel euh, ngir ñuy seet benn scooter boo xamante ne nii borom dafa ñëwoon déclaré ne dañu ko sàcc ci section de recherche bi ñu fa demee nag. fekk nañ fa scooter boobu nga xam ne dañu ko sàccoon ak yeneen ñetti scooter yoo xamante ne nii dañ leen sàccoon seeni borom déclarer ko ci section de recherche ñu leen di seet fekk nañ fa itamit euh, yeneen scooter yoo xamante ne nii euh, dañu ko def ay pièces détachées euh, ci yenn responsable yi nekk foofu yi tamit am na ci koo xamante ne nii euh, dañoo fekk fi mu nekkoon ay paquet de chanvre indien lu toll ci mooy yàmba lu toll ci juróom-benn ante kooku dafa jot a daw dem làqu ci kër sëriñ du Kara euh, nga xam ne doom ji euh, ginnaaw si moom moo ko delloo siwaat jàpp ko indi ko section de recherche ndaxte commandant de section de recherche Euh, daf ko euh, digal ne ko nañu ko indi euh, bi loolu weesoo ci dëkkuwaay boobu nga xam ne fa la ñu fekk scooter yi ñu sàcc ak yàmbaa bi dañu fa fekk lu tollu fukki fukk ak juróom ñetti gone yoo xamante ne nii ñu ngi am fukk at ak juróom ñaar ba jëm euh, ñoo xamante ni am nañ ñeent fukki at ak ñaar waaye lii euh, yéeme ci mbir moomu mooy ñooñu fa ñu nekk dafa mel ni maanaam euh, dañu leen a tëj maanaam di leen di di leen toroxal boo gisee ñi nga xamante ne nii ñii dañu coo am ay gaañu gaañu ñii feebar. Euh, ba mënatuñu dara tëdd euh, ñii boo leen xoolee sax da ngay am yaakaar ne njort ne dañoo tàggox seen sago tellement li ñu leen tëj foofu ak li ñu leen di mettital euh, dafa maanaam wëlbati seen xelaat bi loolu amee waa section de recherche li ñu njëkk def mooy daal di ko yëgal procureur de la république wante yi tamit daal di leen wàllu euh, boo ànd ceex médecin chefu gendarmerie nationale ba nga xam ne ñi nga xamante ne nii dañu am gaañu gaañu wala ñi nga xamante ne nii dañoo feebaroon ñii ñu yóbbu leen ci service de santé gendarmerie ñii ñu daal di leen évacuer l'hôpital principal bu Dakar bi loolu weesoo yi tamit euh, en accord ak autorité judiciaire yi section de recherche di wëyal ay investigation am ci déclaration yi nga xam ne ñi ñu fekk foofu wakaam moom lañ leen jox euh, loolu moo tax ñu dem ba géejawaay euh, dem ba Malika waaye tamit dem zone B euh, ba nga xamante ne nii fekk nañ fa ay gone yoo xamante ne nii ni ma ko waxe woon sànq ak ay mag yoo xam ne seen at mu ngi euh, diggante euh, fukki at ak juróom-ñaar euh, ba ñeent fukki at ñaar ñoo xamante ne nii ci même toogaan bi nga xamante ne moom lañ fekke woon ñi nekkoon wakaam mamel ci lañu toogaan mu am aussi ñoo xamante nii dañoo feebar ñii xaw a sax tàggoo ak seen seen seen xel donc loolu moo tax ñooñu toll nañ ci lim boo xamante nii mot na ñetti téeméer ak juróom fukk ak ñett ñi nga xamante ne nii euh, ñoom ñoo leen doon mettital ñoom ñoo teg ci ñoom loxo tëj leen euh, di leen teg ay mettital euh, toll nañ ci ñeent fukk ak ñett ñoo xamante ne nii section de recherche daf leen a jàpp di leen waaj a jébbal procureur de la république donc lool mooy li nga xamante ne nii Euh, moom moo fi jotoon a euh, rot ci ci mbir moomu euh, image yi nag maanaam ni ñu toogee ak fi nga xamante nii foom lañ foofu lañ leen dencoon dinañ ko wone donc ci télévision ñëpp mën see teg seen bët mën a itamit am xelaat ci maanaam mbir moomu ni nga xamante ni noonu la doyewaan ñi nga xamante ne nii euh, tamit ñoom ñoo leen euh, ñoom ñooy responsable yi nga xam ne ñoo yore woon bërëb yooyu ñu dencoon nit ñooñu dañuy woowe seen bopp euh, ñii commandant ki ci gën a mag ñu koy woowee colonel ñoom ñooy responsable te gis nañ ne sax ki nga xamante ne nii moom la ñuy woowee colonel dafa am ay tool yoo xamante ne nii nit ñooñu da leen fay liggéeyloo te du loon fay maanaam loolu la ñuy wax travaux forcés donc day exploiter euh, seen seen seen liggéey te du leen fay donc loolu laa bëggoon euh, wax maa ngi leen di gërëm di leen sat les personnes qui ont été retrouvées dans euh, les centres de détention de Mamel à Wakam de Guédiawaye, de Malika et de la zone B qui sont appelés euh, par donc le responsable euh, des daara de redressement se font appeler donc ces responsables commandants ou colonels